sama gars l'entrée de Simbo Kama hehe waaw Simbo Kama ndaysan ndaa mi Dakar la jógee de Bour Tefes waaw Dakar la jógee combat nommé la Dakar combat la amone tay ah nu combat ba mujjé waaw Simbo Kama moo combat la Dakar tout droit Dakar amone fo combat nommé dan ñëw samp ci wat be jeun fi ci mbengaan si simbo kama jahaw mo sa débat debia ko ni lay waaw neena la dakar la joge combat nu melo fa amone ndaysan yalla may ko ci ndam mu dawal ci wat fi ci bengan waaw jël na are adresse ngor ren ci kaw ibu jaay oboli Give me that, give me that, give me give it up.